waaleykum salaam. seex maa ngi lay nuyu. nuyu bu amul àpp. di nuyu kilifa diine yëpp. di nuyu ñi ñuy seetaan. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. Ah. ajaratu mareem muy ku baax. koo xamante ni man ak moom dañuy weccante lu bari yàlla am na ko. Ah. moom moo toll foofu ci man. Ah. waaye du nuyu sama mbokk sama xarit sama soppe boo ma dégloo rek ma ñëw sëriñ Modou Kara bii toog ku baax la ndax bi ñu tukkee ànd Abidjan ndeysaan sërite yi ma jënd yëpp moom moo ko jënd parce que am na mbokk la ah di ko nuyu moom mi toog. di nuyu. tur bi lay fàtte. Ablaye Mbaye Peex Ablaye moom it moom it ku baax la. di nuyu Moustapha Camara. ndeysaan yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam. di nuyu kilifa diine di ñaan réew mi aussi ñu ñaan jàmm. parce que jàmm. moo gën jàmmaarloo vraiment di sant ñëpp di am mbégte nag ci teew gi ma teew fi yàlla am di la remercier bu baax ku baax fu mu bàyyi woon ma yeggale rek Cheikh <laughs> maa ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay fay sëñ Soasi ah, si ah, ñu daal di jox kàddu gi sëriñ Modou euh, Karam Mbakke hmm. nga xam ne nee naa la Euh, tey jii mu euh, fekkonte ni si euh, wareef la dañ naan état dañ leen war a daggal salaire ndax. ki defar benn ndaw defar nga am réew. ki defar benn ndaw tëj nga ay kaso. waaye ubbi ay juma ak i jàkk. ubbi tamit ay daara defar nga am réew. moom moom tojul tojul tojul hôpital. yàlla na ko. man hôpital moom ku baax la. waaw daanaka hmm. waaw xam nga xam nga moom. moom ba léegi mu ngi wax. waaw waaye waaw de du ko jar nag du ko jar xam nga président nga may nu ma ñëw. sëñ Modou Kara ñu ngi lay char. waaw ah, alhamdulilah bisimilah inna waliyallah. jërëjëfe Serigne Touba. jërëjëfe Borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sant wax dëgg yàlla ñu toog ci plateau bi ñëpp. waaw président bu Serigne Moustapha daanaka bu la nuyuwul day mel ni man la bàyyi pour ma nuyu la. waaw <laughs> daanaka loo gis rek dañ koy. waaw déet déet déet bul jaar foofu nag déet waxuma la jubóo wala déet bu ma dugal. waaw déet damay bañ nga def ko mbirum xuloog jubóo. waaye ci ixsaan laa la wax dama ne la. waaw waaw ah, déet jéemal xaritoog ñëpp nag. waaw ah, jéemal xaritoog ñëpp ndax Sénégal yaa yilif ñëpp. waaye li ma la ci bëgg a leeral te mu gën a rafet rek te mu ixsaane mooy moom bu bu bu bu lay bu ma bàyyeek yow ma nuyu la mel na ni moo la nuyu waaw moom it di ko jox wàccuwaayam ndax wax dëgg yàlla réew mi ñoo ko bokk te nu waxante woon ci stade ba maag moom sunu loxo ci réew mi baa du dem te booba léegi ci la nu nekk <laughs> waaw moo tax Cheikh boo nu dalalee fii wax dëgg yàlla muy nuru saayir tey baatin ndax zaahiran wa baatinan taw faqa mm-hmm. <laughs> barki dem damay wax am job bu Touba jege gi ngeen may jege. cheikh bi am léegi mi ngi seen TV. ah mi ngi seen TV. ah waa xam nga am nag universel la. maa ko waxoon bul yem fenn. yaatu yàppee nga bëri pexe. ndax njariñ warul yem fenn ñu koy moomale kii wala kaa. léegi am bu seen TV la ñuy wax. mooy ah, moo fi def diiwaan toll na ci ku tedd kii foo xam ni. daanaka mën nga oh. dugg fu ne ndax bugaani bul fàttali sa Serigne Mbacke soxna loo dafa tax ma doon ci buggaan dara. waaw mm-hmm. ndax seen bi def naa bokk naa ci ñi fa dugg ñu ni woowee chef religieux. Oh. <laughs> boobu ma nga nekk ca Medina ko waaye yooyu yëpp rek boo ca bëggee dégg lañ ca jublu. waaw mooy rafetal gi ak ixsaan ndax loolu mooy réew mi. waaw loolu mooy réew mi bu ko defee di nuyu ñi fi toog ñëpp rek. Mm-hmm. di wax ni Sénégal waaw ñu ngi lay fay président waaw ñu ngi sant bu baax. yow ah, def nga ko ambassade itinéraire. waaw ambassade de la paix. dama kon bañ a jiitu pour <laughs> ñoom doo leen xam naa ci lay wax nii. waaw waaw déet <laughs> président nag xam naa ni teral nit ba pare ni tey nga wax ko moom fii rek laa am. Ah, waaw mais pour nga wax xam nga ni tam bu la defaree lu baax day bëgg daal. waaw ñun nag suñu wax da dul génn ku tedd ki daanaka bu nu ah. tuddee ku tedd ki dexuñ nañ ci lépp ndax yaa ko wax maa ko def <laughs> xam nga sàkkoo ko. Ah, mais tam. waaw sàkk mu waaw déet boo jëfee sa jëf bul xaar ñu di la. xiisis dem ba. non sama def nga ma ko. <laughs> def na ma ambassadeur itinéral xam naa ne nag bëgg oh, wax naa ko fu ne it wax naa ko njaboot gi wax ko ñëpp. sëriñ sëriñ Moustapha bëgg naa ñëw ci yaw ci tolluwaayu jamono ak gi xew ci jamono yun daan yun daan yun daawul dégg ci jamono di ko dégg ci jamono yun daawul gis ci jamono di ko gis ci jamono. ki démb rek maa ngi dégg tes bi Mansour Diop sa taalibe bi oh. Mantulaay ci bundu ndeysaan ku bon ak Mame Mbaye ak hmm. Cheikh Sarr hmm. maa ngi dégg ñuy wax sax ci ay yeel yu ñu sànni ci autoroute à bi yoo xam ne mosuñu ko dégg daal est-ce que jar na ko jaru ko rawatina fi jamono toll ah. lu ko jaru rek jaru ko ah. te bu nit ñi comprendre wala asri hmm. inna l'insaana la fi xusri bu ko nit ñi déggoon yii ñu nekk duñ ci nekk yàlla am na ko waaye malheureusement ils n'ont pas compris moo tax xaral bu pire dina am ah waaw mu gën a pire parce que ñi jiite mhm. yërëmuñu ñi ñu jiite ah. te nit ki mën na ñàkk bay dem te du ko yëg li gën a bon tarxiis ba ni la ci ci ci ci fi nga jëm baaxul. am na nooy tarxiisee rek daanu. moo tax nañu dal nañu rafetal te bàyyi yi bon yi. lu am solo la. am na loo xam ni dara jaru ko. jarul ko maa ngi ko wax Marème pour. jarul ko donc wala maa ngi ko wax Marème. ma ne Cheikh doo ma bàyyi ngir yàlla ma ma développé. non dama ne maa ko wax Marème ma naan bi li muy wax ni dafa am solo parce que amul tax parce que booy bi foog nga wax ak moom. booy boobu booy kaña bi. xam nga lii kaña maa ko wax du ma tudd turam. yàlla booy kaña bi wax leen ko dëgg. yàlla li mu bind doomu aadama Cheikh yàlla li mu bind doomu aadama la ci gën a fonk boo demee jiite ab réew naan nit ki kaña nga. mais da nga teraat mais damay jégalu sëñ bu fekkee ni day def affaire kaña. man xam naa ki muy wax kaña la mais duma ci dugg. Ah. mais buy kaña aussi les aram na. les eh, les ah. ah. non je comprends pas quoi. ne comprend pas. kan mooy yaay ma mooy lézard maram waxul man ma les dañu lézard am na. de koo tuddee kaña am na lézard kon yaay lézard bi li yëpp yaa ko teg sa bopp. lii moo tax ma naw ko. Ah, du far kenn ci lu nekkul yoon. sa ça qui est important. Ah, nit boo jiitee da am tuuti fulla am tuuti fayda xam ñi nga jiite say nawle lenu ah, moom ñemewuma ma li li mbër boobu waxoon yow say supporter ñoo ma yab waaye yow yabuloo ma. moom yabu ma. yàlla na da nga xam rawaanam. wax naa ko ko nelawul. 6 heures du matin la ma woo. naan ma loo bëgg ma ni ko li ma bëgg amuloo ko. mais sëñ bi loolu jarul wax fii comme waxoon naa la d'accord um tam. ma ni ko li ma bëgg amuloo ko. non sarax bi ma waxoon moo seer ko. yaakaar naa boole woon na la sax ci ambassade itinéraire bi wax dëgg yàlla. maa ci génnaat ba set parce que. ku mu peeg la bëgg. waaw ah, mais sax sax xanaa plateau bi da nga pour. te mënu ko déet déet déet non maa ngi bëgg a jaaxle. Ah. seulement que xam nga xam nga réew mi dafa toll foo xam ne président. non dama nekkatul en l'aise daal. sax réew mi fi mu toll bu nu waxul rek musiba. waaw dama parce que xam nga réew fi mu ñor di jëm. baaxul ci coowal. Ah. troisième mandat deuxième mandat. quatrième mandat quin deux quinquennat xam nga yooyu. Oh. bu ci kilifa yi jógul wax oh, buñ ci jógul musiba am Modou Kara maa ngi gis mm-hmm. moom tout le temps bu politique bi yëngoo da ci dugal da ci dugal loxoom mm-hmm. gis naa fan yi passé bi ñu tëjee D-Media ci dugalee loxoom mm-hmm. gis naa fan yi bi euh, président Ousmane Sonko di def ku tour gis naa mu dugal ci loxoom oh. yu bëree bëri da ciy dugal loxoom ba ci assemblée bi ak léegi euh, sëñ Modou Kara assemblée bi léegi est-ce que doo toog yow mi nga xam ne au moins fekke nga jamono yi Lamine Kouré Gueye ak ñooñu ak assemblée bi léegi ni muy doxee est ce que du la xaw a jaaxal Mbacke. waaw xam nga <laughs> li may faral di wax rek weñ waa nga bañee ca manjaxaan nga. Hmm. ndax maanaam système bi dañ cee génne mag ñi. te fii dafa am lu nu moom dafa am loo xam ni teggin ñun ñoo ko moom fan lañ ko jëlee mooy ci mag ñi. ku tedd ki dëxal na ko ci téere yi jàngale ni nuy yore ak ki ñu yor ka jiitu war naa yërëm ki ñu yor ki yore it war naa xam ni li mu yor moomu ko. vraiment mooy li may wax ci ceeb ak xooñ xam nga xooñ bu demee ba doon xooñ ceeb la taaw ba doon xooñ. te yenn saa ci gàtt xelu nit kat dinaan puusal xooñ mi bëgguma ko te pourtant moo la taawul li tax nga mën a xew waaw liñ cay jàngate mooy assemblée bu la nee dem fa waxuñu la nga dem du fa du wala ngay xeex waaye da nga war a xam lan mooy responsabilité wu fan la dugal ak nen ñoo nekk sa ginaaw mhm. nga mën a dox ci rafetal googu ndax ku dem mhm. waaye waay yow ku dem ni da ngay xeexal sa gox boo xeexee la nga war a waxoo ko ba gox ba kii ba yaa leen lor te nga nekk ci gox ñu tànn la moo tax tànnin wi dama waroon wax ni dama doon wax ni nanu changé tànnin wi ndax danoo war a fexe gox bi di tànn ki leen fay teewal waaye pas président bi di désigner ka leen fay teewal ay maam jara fam nekk ci assemblée bi yaa ko tudd nag man. <laughs> non tudd mais bu personne dañoo def seen délégation du Roubaix assemblée gis naa ah, leen. honorable député Koura Macky nag. de xam nga la Koura xalal xam nga bu ngeen ko personnalisé lan ca war a wax. ndax ñun bu ñuy wax dañuy wax mu jëm ci ñëpp xale bu ndaw la voilà kura xale la ak maam jaara faam ak ñoom ñëpp ñi leen njaboote mooy ñi sanc réew mi te sancee ko jàmm réew mi nag nee naa leen kenn du ko yàq ndax ku ci bëgg leneen lu dul loolu sa kaw la jëm waaye li tax ma proposé loolu mooy koñ ba bu nu tànnee danañ xam kan lan war a tànn ak kan moo mat pour ñu tànn ko waaye bu demee ba sunu Sénégal gi pour nga dem assemblée faaw ñu ne pànk bi wala xeexkat bi te assemblée loolu tax koo jub loolu kat bu ñu ko toppee réew mi du dem <laughs> loolu moom ma doon jërëjëf réew mi day comme ni ko président Bougane di waxee réew mu ñu mun nañ leen